Eh, jigéen yi nañ leen try ñu dimbale leen because soo buggee eh, dëkk bu développe jàppaleel jigéen ak ndaw Rwanda loolu la gaay def day xool jigéen yi lan la gaay gën a amul fonka ko gaay jox leen ko ndaw yi lan la gaay gën a amul fonka ko gaay jox leen ko ana Rwanda tey number one Africa